jeexal nag euh, ci tweet boobee ñëwaat na ci déparam am mu ne euh, le 2 euh, avril dina daal ci bàyyi réewum Sénégal mu ne nag décision boobu amul lenn loo xam ne wala kenn koo xam ne si ni mën na ko ci dellu si ginnaaw muy son départ nag mu nara jur coow lu bëree bëri ndax après dafay am beneen situation boo xam ne si ni dañu koy dund après le 2 muy situation boo xam ne si ni Sénégal mosu koo xam suñuy texte aussi amul benn bu ko ci euh, prévoir euh, c'est euh, conseil constitutionnel en tout cas après moom mooy am le dernier mot daal di statuer ci li nga xamante ni moom moo di situation boobu lee am kebe mm-hmm. le départ de Macky Sall moom nee na dafay demoo ah. dafay dem te kenn du mënu ko téye parce que le deux maanaam dafay jeex te du fi toog. du fi soo ma ko mayee parce que bëgg naa wax ci ci Amadou Ba parce que demoon na seeti sa gars yi. Saint-Louis waaw demal na Saint-Louis démb seet na leen mais kàddu yi ma fa yëkkati man vraiment parce que nee na en tout cas bi mu bi ñu dégloo ñenn ñi. kenn ko ci déglu déjà mi ngi lay wax que ni yoroon na xëy na somme bu tollu ci cinq cent mille wala trois trois cent mille francs boo ko xaymaa euh, par mois mu nekk soit quatre-vingt-dix mille wala euh, cent cinquante mille par mois moom nag mu mu estimer que ni loolu en tout cas doy na pour que ñoom ñu mën a dund fii dund vie bu stable. Mhm. mu nekk kàddu yoo xam ne man dama jàpp ni. Mhm. moom waru ko woon a yëkkati ci kanamu ñoo xam ni déjà am nañu naqar goo xam ni. Mhm. dem nañu ba gis ni ñoom xajootuñu ci réew bu mel ni Sénégal. gi nga xam ni maanaam Barça la war a Barça soit da ngay dem jàll wala nga faatu yoon bi ñooñu tey fi ñu toll ba jël yoon boobu noonu tey amoo lenn looy ñëw di ko wax ci seen kanam lu laaj leen leen mm-hmm. euh, some la ñu yoroon ñu leen lii la nga jàpp ni quatre-vingt-dix mille francs yooyu noonu mm-hmm. Mm-hmm. wala euh, cent cinquante mille francs yooyu noonu ñoom mën nañ ci dund reste fii ci Sénégal dund ci vivre stable c'est parce que man dama jàpp ni euh, moom xamul dëgg-dëgg la ma jafe-jafe sénégalais yi affaire mais tey Mahfouz ñun boo ñu jëlee fii tey ñu sommes à Dakar nga xam ni da ngay da ngay louer location fii néeg yi ci gën a yam trente mille francs la. trente mille tuuti sax trente quatre-vingt-dix mille francs boo ci génnee. trente mille daa amati mm. ci des. trente mille Dakar de. ci génnee ci quatre vingt lan moo ci des en fait. Ah, nga nga bëgg ci génnee sa transport ci facture yi ñëw ñëwagul. facture yi ñëwagul courant fay ndox nga war a lekk war a naan. Hmm. yaay des fois mu woo la rakk woo la mag woo la nga ne ko ci quatre-vingt-dix mille francs mën nga rester fii ci Sénégal dund ci vie stable mais hmm. tey moom en tant que premier ministre bu taxawee jàkkaarloog xale yooyu noonu hmm. les yeux wala mu jàkkaarloog famille yooyu noonu di wax loolu noonu tey jii mu koy di man dama jàpp ni vraiment moom ñi dañuy li ñuy wax ni vraiment ñoom yëguñu liy xew ci réew mi wala yëguñu liy riir ci réew mi hmm. fekk am na ñoo xam ni sax yow ak suñu réew mi nga xam ni des fois mën nga euh, investir fii nii Mahfouz choisir ni da ngay rester fii investir fi ba pare. Hmm. mais ñu ñëw jaay la doole. wala ñu nax la wala ñu wala ñu wala ñu njuuj njaaj la ba lekk sa xaalis wala ñu sax ñu ñëw leb la ko comme ni ko ñeneen di waxee da ngay mm-hmm. investir Sénégal ñu ñu leb la lépp te du mujj fenn parce que affaire mbokk lay doon mm-hmm. mais tey ñooñu noonu amoo benn solution boo leen proposé lu dul naan leen mm-hmm. non lii ngeen yor mën ngeen ci dund dund bee taabul fi la nga xam ne moo di ci réew Sénégal vraiment loolu dama jàpp ne du woon cëram moom en tant que premier ministre Amadou Ba ba mu demee lii ni c'est pas la première fois waroon na xool naka la ñuy trouver solution ñu xool naka la ñuy dàkkale mbir mi mais bien bu demee di yëkkati en tout yooyu noonu man lu may ñaawlu la mhm. parce nit boo jiitee da war a yërëm da war a am yërmande mais euh, waroo jiite ba pare di yëkkati yenn genre terme kàddu yi nga xamante ni si ne surtout ñooñ ci mois bi ñu toll amee naqar boo xam ne tey bu ñu déggaatee kàddu yooyu noonu Mahfouz mhm. mën na leen gën a dolli naqar te am na ci ñu bari ñoo xam ni li ñuy jàkkaarloog dee dee dee suñu paree ci loolu bu ñu gisaatee gaal bi dem mhm. Sénégal nekk Sénégal rek déjà kaso la. moo tax euh, waroon na mën a yëkkati yeneen kàddu euh, Mahfouz. maa ngi koy jégal nag parce que dama dama. ma ñëw ci li nga xam ni moom nga wax muy président Macky Sall bi nga xam ni nee na. dafa war a dafa war a départ en tout cas ni ki le 2 avril. te saa mm. su ne mi ngi ñu koy mi ngi ñu koy. rappelé ah mm-hmm. saa su ne. bu ko moom wax na ci bay bëgg a dee. Mm. ñeneen ñi ngi dikkaat di ñu ci waxaat gis nañu euh, ma jambal Diagne génnaa Diagne moom euh, la plupart euh, ay ay ay xibaaram yoo xam ne ñu ngi tukkee ci côté boobu noonu. Mm. li ñu naan naar bu ndaw lu mu wax ca berkeele ba la ko déggee tey bu ñu dikkaatee du ñu rappelé loolu. en tout cas bu fekkente ni dafa bëgg a dem di wax dëgg yàlla la porte est grandement ouverte. Mm-hmm. te buy même dama war damay dem boo xam ne yow da nga war a dem parce que da nga jeexal en fait moom munu fi toogaat bu ñu àggee ci li nga xam ne mooy la 2 avril kon laa yaakaar naa que Euh, jërul euh, jërul euh, mu koy wax. Mm. beneen bi ci des mooy gis naa ki nga xam ni moom mooy Me Sidiki Kaba. Mm. di wax ni. Euh, ñun Sénégal ñaari option lañ am xam nga je sais pas. Mhm. man xam nga ndax. santage loolu loolu dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw mooy reprise bu euh, waaw. d' accord mais mais li nga xam ne moom moo ci am rek euh, mooy que ni moom président Macky Sall su demee. Mm, mm. Mahfouz dafa mm. war a dem su demul dafa war maa ngi gis dèjà ci réseaux sociaux yi. ay yenn yi di ci di ci di ci mel ku ci comédie des fois parce que <laughs> tout simplement tàggatoo boo xamante ni si nii yow ñi ngay dem nee nañu la nee ñu la nga nga dem. mais tey jii président Macky la nga xam ne Sénégal yi Sénégal dafa wàccoo ak moom Mahfouz. tey président Macky Sall yàlla xam na ni euh, man de jàppoon naa ni euh, waroon na mën a lebal Sénégalais yi lu dul leneen lu dul lii parce que tey Sénégal moo ko defal lépp. Mm-hmm. fi la jàngee ñoo ko fayal am njàngam. lépp cursus cursus scolaire am yëpp fi la ko defee. am na ñoo xam ne dem nañu France jàngi mais moom UCAD gii nii la jàngi lépp ñu ñoo ko defal. mu pare mm-hmm. ñu dugal ko ci suñu gouvernement. Mm-hmm. mu nekk ci ba tey mu am li mu am bon avant mu yéeg nag nee na am na huit milliards yoo xam ni euh, en tout cas ñu bari ñu ngi ci remettre en mais mm. anyway mm. mais ñu dugal ko ci gouvernement pare ñu jox ko suñu réew mm-hmm. tey Sénégal dafa wàcco ak moom man yaakaaroon naa ka ni tey jii beneen président mm. waroon nañu waroon na mën a teg Sénégal coono bi naqar bi ba mu des ki nga xam ni moo di président Macky Sall en maanaam delloowul naar bi xoromam mm. bu fekkonte ni dafa rendre euh, sénégalais li nga xam ne moom la ñu ko lebaloon tey moom dana xalaat leneen lu dul di dugal Sénégal ci guute yi nga xam ne ci la ko ci la ko nar a dugal moo tax ma jàpp ni euh, vraiment te demam gi nag man gëw ma ni président Macky Sall pour dem sincèrement gëw ma ni non gëw ma ni pare na pour dem parce que <laughs> damay dem damay dem boo xam ne chaque jour yaa ngi koy répété bu fekkoon tey nga bëgg a dem est-ce que du demal non demal demal gu bari gi bu bu bëggoon a dem. Hmm. day toog jàpp boppam ba mu ko waxee benn yoon. Hmm. te lay ciy pare parce que kilifa tamit du bari lu muy répété quoi en ba mu ne damay dem. Hmm. ñun ñëpp xam na ni kon waxi kilifa la mais. Hmm. le 2 avril mandaawam jeex tàkk. parce que hmm. mayuñu dara. 2 avril dafa war a jeexal mu dem. mandaawam jeex mu dem su ko defee ñun comme que am na xolu bàyyi ñu suñu réew. ci gudde yi ne ñun ñu xool naka la ñuy organiser woo euh, ba mën a sauver suñu réew ci gudde ji mu nar a dugg mais chaque jour chaque fois damay dem damay dem goo xam ni. Euh, ñu bari. parce que waxoon nii la meloon ci ci ci première ci mandat wu sept ans bi rek. Mhm. dama koy def cinq boo xam ni mujj nga ni dama ko bëggoon def cinq ans mais par la suite euh, gis nañu sept la ko mujjee def. moo tax mhm. daal en tout cas euh, nañu nañu nañu nañu gën a rester vigilant euh, parce que à tout moment comme ni ma koy waxee toll nañ ci moment boo xamante ni si ni bu ñu. yaafuusee tuuti rek réew mi mën dugg ci guddi goo xam ni maxfuus comme ni ma mm. koy waxee euh, pour génnaat ci dina jafe. dina dina jafe Moustapha le départ mm. de Macky Sall il a annoncé euh, en fait euh, annoncé waat na ko démb ah, ci tweet bi nga si nii def na ko noo jàngatee tamit le fait que mu koy répété et son départ après est-ce que duñu indil beneen crise boo xam ne si nii tey Sénégal mu ni ci dugg. waaw xam nga li li li njëkk a constaté man dama jàpp ne doyal na. Mm-hmm. Mm-hmm. man personnellement dama jàpp ne moom Macky doyal na sëkk sëkk bu mënoon xëcc date bi sax daf koy xëcc. Mm-hmm. parce que mbir mi nu ma ko yaakaara woon ak nu mu mujjee am moo amul. parce que au début xam nga ñëpp dafa clignoté ñëpp xam fu mu jëm. ñu dem di ko fa xaar. da ngay yokk da bëgg toogaat da ngay yokk léegi wax jooju dem nag ba même boo bëggoon yokk sax finalement. nga jub dara rek ñëpp taxaw di la xaar. finalement da dem ba dootoo ko bëggati wala dootoo ko mënati. léegi mu doyal sëkk nag léegi su fekkente ne mbébét na sax toog au delà du deux il faut que mu créer benn situation boo xamante ni les gens vont dire que il a été obligé mu rester. Mhm. xam nga li ma la wax maanaam wax naa leen doyal naa. recevoir naa nit ñi si dialogue ma ne leen doyal naa bind naa ko ma ne leen doyal naa mais conseil moo ne ma toogal du ma fi teg keneen toogal ba sa successeur ñëw parce que mën na mm. nekk mm. mën nañ interpréter article bu constitution bi côté boobu comme ñoom niñ koy interpréter wala conseil bi gis dans sa gis ne mu toog fi organiser élection yi comme processus fii jàpp na dat mm. mu toog organiser élection yi doog dem moo gën a normal que ñuy indi beneen intermédiaire si diggante bi mu indi beneen image wala leneen loo xam ne xamuñu ko woon c'est-à-dire conseil bi su boobaa moom mooy décider. Mhm. moo tax ma ne maa ngi tàggoo bi nii maa ngi tàggoo bi su boobaa lay am sens. Mhm. parce que dina leen bind naa wax naa demandé naa conseil bi conseil moo ma ne yaay toog. Mhm. munu ma ne nag yaay toog ma ne ko du ma toog damay dem. su boobaa danaan doo dem. kon damay toog organiser na élection doo ko dem malgré moi-même. donc loolu moo tax ma jàpp appel yi loolu lay def pour ëllëg su fi toogee ku ko taxaw ngaañ ko sax mu ne ma néew dañ maa forcé ma toog waaye man bëgguma woon beneen mbir bi ci bi ci am mooy bu toogee mu dem mu demee pour man ak lépp lu ci mënta am. Mm-hmm. man sama gis-gis la te loolu yàgg naa ko répété ak lépp lu ci am mun a am pour man à partir du deux dafa war a dem. Mm-hmm. ak lépp lu ci mënti am à partir du parce que àddina moo demee noonu dafay dafay dafay dafay dafay avancé yow dañu la joxoon nga war a organiser élection nga war a jàpp date conseil bi ne la déedéet jàppal date. Mm-hmm. dans les meilleurs délais nga toog di yéexantu di traîner les pieds. di def nii di def na le ba temps bi rattrapé la mënatoo organiser élection si diggante bi duñ dafa bàyyi ngay organiser waat élection pour lan nañ la pousse indi ko ne day ñëw organiser élection courte dem yoonam man loolu laa yaakaar ne su ko defee dina servir de leçon président bi fiy ñëwaat suba nga mën a bu ñu la joxee àpp élection nga respecté ko mhm. mais sinon di ko mën a puusaat après nga ne jurisprudence su Macky mi ngi fi dañ may bàyyi léegi ma toog organiser élection te su boobaa dafay doon benn porte boo xam dafay ubbeeku pour ñëpp mën a organiser élection mhm. du doon loo xamante ni image bu rafet lay doon yëg si ba fii nag mhm. lépp moom la donc nañ ko nañ ko nañ ko jaarale foofu